maa ngi na ba pare te woote bi tamit gis na ne mi ngi dox normalement taw na tey gis nañu ñëpp mi ngi taw weekend bi yëpp sax dafa taw fan yi yëpp sax laay wax mi ngi taw waye nit ñi ñëw nañu woote fii nag su ñuy wax nit ñi moy euh, élu yi municipaux yi conseillers départementaux yi ñom ñoo consulter corps électoral bi te bima ma liste bi ak information yi ma am gis na ne taux de participation bi amna solo donc lolu moy électeurs yi xam nañu solo su au conseil des collectivités territoriales motax tax nañu voter bi ñu ñëwee gis nañu comme niñ ko xamé won né opposition bi dañoo boycotté li tax ñu boycotter nak yom la dañoo xamone ne fii ñun ñoo ëpp ay conseil donc suñ ci bokké dañu ñak ñu ñoy gagné. motax euh, politiquement lolu c'est une stratégie la ñu boycotté boycott bi nak suñ ko défé euh, ñaari bulletin moy am benn bulletin bi moy bulletin Benno Bokk yaakar bi nek en lice benen bi moy bulletin blanc bi waaw te gis naa ne euh, waa Benno Bokk Yaakaar yu bari def nañu déplacement bi nous nañu voté loolu nak dañ koy dañ importance la parce que démocratie suñu nous nit ñi da ngeen war a ñëw da ngeen war a ñëw ñi war a ñi war a conseil des collectivités territoriales parce que au conseil des collectivités territoriales institution de la république comme président de la République, comme gouvernement, comme Assemblée nationale, comme Cour suprême, comme Conseil constitutionnel. Institution de la République. D'ailleurs, moi, troisième institution de la République. Ensuite, institution euh, de la République, boo il dafa importance c'est le Sénégal au Conseil de la République on a ay dëkk yu Malibi demee Mali bi am conseil des collectivités locales y na sax presque 30 ans depuis 30 ans 40 ans nous nañu au conseil des collectivités locales Au conseil des collectivités locales liko outé ak assemblée nationale ak yenen kuréel moy assemblée lepp lañ fay waxtaan té loi yi ci lepp la porter waye conseil des collectivités locales nous dañ une jox vocation naka yow lépp loo xamante décentralisation le développement local ci gouvernance locale ci politique publique locale loolu yow ce ci war penser, xalaat yow yaa ci le a ce yow yaa ci war ak acteurs président de la République parce que le président il muy li muy ñu ko président de la République xelal ci gouvernement xelal ci assemblée nationale ci lépp loo xamante dafa aju ci décentralisation C'est ce lu am solo la ci réew surtout réew boo xamante ni da de gëm décentralisation Le président de la République a gëm décentralisation C'est moo tax bi mu La réforme bi mu été lancée lancé la politique de l'acte 3 de la décentralisation ci 3 acte 3 de la décentralisation bi ñu ko fait ba la au conseil des collectivités territoriales loolu institution bu am solo la te tey ku gis nit ñi élus yi ni ñu déplacé pour voter nga xam ne xam nañu solo su institution boobu.